هو الشيخ التقي هو عالم القرآن هو حبر النجيب Mamadou Mouhamed Ndiaye li ma leer mooy fépp foo xam ne bagage bu baax ma nga fa xam nga ko commerçant yu Argentine ñooy laajte ana bagage yu baax it fan la ne xéewal yàgg yu baaxee ñoo nga ca boutique Serigne Habib Sy Mansour yéen commerçant argentine yi seen coono jënd bagage ci été bi jeex na boutique Serigne Habib Sy Mansour jëlee na ko fi boutique Serigne Habib Sy Mansour ma nga ca onse ba Reve de Via 2565 en face Western Union bi gérant ba di Mamadou Lamine Faye wér nga wax Mamadou Mohamed Ndiaye Mohamadou Lamine Faye mooy chef ci mbir mi dafa dem Chine wuute ay bagage yu baax di ko jaay itam ci ñëgu xéewale numéro téléphone am 11 40 98 93 65 yéen ñi nekk ci géej gi jaratul ngeen di dem ci capital ba ngir am bagage bu baax Mamadou Lamine Faye mi leen jàppandal Chérif Été tax mu wut ay représentant ci géej ju mag yi nekk ci diwaanu Argentine am na représentant Salta Capital gérant ba de Goroka mi ngi ci Kaase Mendoza 385 ngeen mën ko woo ci 11 28 18 07 52 am nañu place itam ca Mar del Plata gérant ba di Dodo Faye ma nga ca Rivadavia 21 19 ngeen mën ko woo ci 223 615 98 18 am nañu place itam ca Villa Gesell Serigne Mourtala Touye ma nga fa numéro téléphone am 11 57 32 06 44. pomme terre ak Angleterre bokkuñu roy mënta niroog pire ak Mouhamadou Lamine Faye boo fu yegg see sa jaaxle jeex sa soxla daf lay wan ginnaaw Mouhamadou Lamine Faye mu indi ay bagages jëlee ko Chine di ko jaay ci njëg yi xéwale yow mi nga xam ne dangay commercant commerçant bëgg jënd jaayaat mën ngaa ñëw ci Mouhamadou Lamine Faye mu jaay la ay bagages yu baax ci njëg yu xéwale prix yoo xam ne nee naa la Chine waaye sax ñi mu mën koo jaayee. kon nag coono jeex na été bi affaire bi boutique Serigne Habib Sy Mansour la bu ngeen fa duggee du ngeen ko réccu ak boutique Serigne Habib bi moom rek laa ci wóolu. la sëy mbay la man jox naa la ndigal doxalal yaa ngi tedd fii tuwaat bismillahi mooy bëgg ku sopp al amin jógal taxaw ni ma man la tey ma nga tëdd feetu waa bismillaahi bay bay bay sëñ Abdou Fatou këri gi yaa ko yor Fatou Mbaye si yaa ko yor Fatou Mbaye ba waaj ko yoroon ma nga tëdd feetu waa

amin soora nee na la jaaraama mi gàncax ngalaama maam Seydi Jamil ni la yaay amin yetti waawan bilaay ay ba buy waa di gërdi waay ana soppay sëñ Abdu sa xamoo ki may ba buy yaay amin yetti waawan amin